wóor rek wóor gën bàyyiwul mais boo yi tamit bàyyiwul. ñoo koy gisee ni booy yi ñoom dañuy manifester dañuy manifester wu gars yi ñuy yokk nañu renfort c'est ça le problème renfort bi ñëw na. ëllëgu doom moo tax ñuy raak suñu ëllëgu doom moo tax ñuy rayante dañu bëgg lépp sotti lépp rafet waaw. Ablaye Wade lii day mel ni 86 la mais bi may wax rek nañu wax te sëñ Mountakha la ubbi gémmañam mu wax sëñ Mountakha lan la Cheikh Abdou Karim Mbacké wax yaa ngi def gis nga Abdou bu sëñ Mansour si borom daara ji wax na lii lu mu doon dem dikk nag kulli nafsin saa'iqatul mawti avocat yi nañu xalaat seen bopp juge yi xalaat seen bopp ak gendarmerie safara tàkk na te deema ko mais dafa am lu métti ndeysaan parce que boo xoolee boo xoolee eh, gis nga leen ay xale yu ndaw nekk nga gis ñu yor drapeau Sénégal man eh, benn kàddu bu dee ne Sonko dañu nekk di wax ak euh, du wëy. ànd ñoom ñoom même front bi aussi àndul si loolu. am na loo xamante ne métti nañu. donc nañu ànd ak dal bàyyi toj yi bàyyi xeer yi nit mën nga procéder d'une façon te gëm le président Macky Sall a entendu sa jeunesse. le président Macky Sall a entendu les Sénégalaises et Sénégalaises. na moytuñu ko wër parce que xelaluñ ko dëgg. bëggaluñ ko jàmm. parce que deme si su su amee kenn kuy paye les pots cassés c'est le président de la République. lu xew si réew mi ku su waxul complice nga acteur et complice nga. et nous n'accepterons jamais buñ fi nekkul seen problème la ñun lu ñu ñor mooy Sénégal moo ñu ñor. parce que au delà de toute considération politique nous sommes des Sénégalais. nous sommes des Sénégalais donc tey dëkk bi tàkk gënaluñu arrangé wuñu donc j'appelle à la stabilité que na ndaw ñu arrêté na ndaw ñu ànd ak dal tàllawuñu kenn lakkalowuñu kenn doflawuñu kenn jëf ju ñaaw